asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal di am contentement ak mbégte comme ni ñu ko safoo di ko defee di leen daral sur la chaîne leader Dakar People tey nag ñu fas yéene ànd ak kilifa borom xam-xam bu kenn dul naatable ñaankatu yàlla bu ñu ràññee ci biir ak ci biti réew mi ñu gën ko xam si Cheikh Omar Thiam Cheikh Omar Thiam nuyu nañ la. ñu ngi leen di fay. di rafetlu seet si bi nga xamante ni seet si ngeen ñu ko di nuyu kalifa diine yi kalifa aada yi di nuyu xalifa yëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi ñu ngi leen nuyu da ñaanal jàmm di ñaanal réew mi jàmm bismillah macha allah sëriñ bi ñu ngi lay fay tey nag ñu seet si la daanaka comme nuñ ko faral di ko defee pour waxtaan pour am ak yow waxtaan laaj tontu waxtaanee xam-xam waxtaanee pàcc yu bëri ci mbiru xam-xam mais tey balaa ñoo dugg ci mbirum xam-xam bi rek xam naa bëgg nañu waxtaanee tuuti actualité.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 wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli gannaaw loolu ñu ngi rafetlu maanaam ci laaj bi nga xamante ni laaj nga ko maanaam Sonko nekk na xale boo xamante ni wax dëgg yàlla nit ku baaxal la wax dëgg yàlla sama soppe la te wax dëgg yàlla fasante nañ kóllëre mu nekk xale bu baax xale bu yaru waaye li nga xamante ni maanaam moom lañ koy tuumaal loolu mën naa koy kitaabul ci quraan ne loolu defur ko ndax moom jullit la te wax dëgg yàlla am na loo xamante ni jomm na ko te xale bu ma xam la xale bu ma xam lum mu sañ a def ak lum mu sañutu def li ñu tumaal nii nag ñeme naa lay wax ne deful ko waaw ndax man xam naa ko xam naa kan mooy Sonko waaw loolu moom moom kitaabul naa la ne luñ koy tumaal ni defu ko te buñ demee ba ci biir danañ xam ne lii deful ko waaw doomu aadama nag mën ñàkk jaar-jaar lu daloon yonentu yàlla yusufa man naa wax ne loolu noonu feeñu na ko waaye ñu ànd ci gëm yàlla te xam ne lu dëgg rek neen la waaw yàgg-yàgg dëgg mooy mujj waaw kon nañ rafetal lépp bi nañ rafetal lépp waaw même nit ki boo demee ba bugg kay mbugal nanka nga mbugal ci yoon mhm. waaw waaye bu ko politique lal mhm. bu ko tappale lal bu ko caaxaan lal te jigéen jooyu noon maa ngi koy wax na ragal yàlla mhm. na ragal yàlla xool suñu diggante ak suñu borom ndax àddina dafa mat a sóoraale loolu maa ngi koy digal ñëpp te lu gën a bon mooy fen fen baaxul ndax yonent bi sallallahu alayhi wa bañ ko laajee ndax jullit dana sàcc mu ne mën naa am ndax jullit dana njaaloo mu ne mën naa am ñu ne ko ndax jullit dana fen mu ne mukk kon jullit warul man a fen loolu ñu ngi koy wax bu baax a baax a baax di ko rafet na soxna sooy na rikkale na tuub na jéggalu Sonko naka baaxalu xaq te xamante ni su ko baaxalul xàq dana xam lu rëy lu ko dal waaw te du yàgg dara nag naka lu xàq waaw. macha allah Cheikh Omar Thiam kàddu yi am na solo trop dénkaane am na solo trop daanaka mbirum actualité fale ñu laal ko xam naa dinañ fa génn tuuti ñëw ci mbiram waxtaan bi lu ñu gën a yëkkati mooy waxtaanee mbiram xam yu si mel ni seet sëriñ bi Cheikh Omar Thiam daanaka mun nañ ne seet tey ji mooy buntab sëriñ tey képp ku ko tële rek di askanale sa bopp sëriñ daanaka mun nañ ne tey ji kooku du ab sëriñ lan nga ñu mun a laay biir ci mbiram seet lan mooy déggi-déggi seet lan mooy njëriñal seet ci doomu aadama waaw wàllu seet dafa xam loo xamante ni maanaam yàlla daf ñu ko ci may muy xam-xam bu wér bépp nit koo xamante ni dafa xam ñu bari ñoo xamante ni ñu ngi may boole ñoom ci mbirum seet tey man maa mën a seetal nit ki wax ko loo xamante ni maanaam foogutoon na sëriñ ko ko wax ndax man des fois damay seetal nit gis ko mu nekk ci maanaam di njaalo ma ne ko bi ngay def bàyyi ko man maa ko ñemee wax ci seet damay seetal nit gis ko mu nekk ci naka su dul noonu ma ne ko loolu noonu bàyyi ko même ñoom sax da leen di jaaxal ne waaw sëriñ bi nu mu mën xamee lii ci man mbirum seet dafa nekk xam-xam boo xamante ni maanaam dañ koy jàng wala ñu jagleel la ko maanaam dara feeñu la jox la ko lu demee ni ki jinne jox la xam-xam boobu noonu waaw waaye ñun mbiram seet dañ kaa jàng ba pare xam loo xamante ni maanaam jinne daf ñu koy jox man maa mën a jàkkaarloog nit di ko wax ay mbiram te duma la seet ci ndox duma seet ci kurus duma seet ci ramlu jàkkaarloog moom di ko wax ay mbiram loolu man rek la ko yàlla jagleel ci kàttanu yàlla te boo xamante yàlla moo koy maye wàllu seet wallahi xasimi jamono jii mën naa wax ne xàddina bi xewuma see kenn ci seet loolu ñeme naa yëkkati sama loxo ci kaw ndax bët bu set danaa xam lu mat cent onze personnes ci wàllum seet waaw bu fekkee ne listixaar la moom danaa ci xam quinze personnes fukki personnes ak juróom duma ko ci romb waaw waaye wàllu wëpp képp koo xamante ni maanaam seet say mbir xool ndax baax na wala baaxut xool say situation xool say jafe-jafe bu lu yittalee incha allah war boo jokkoo man dinaa la seetal te dinaa la teg ci yoon woo xamante ni incha allah soo ko toppee incha allah sa jafe-jafe bi wan ginnaaw te allah sa xaajo dana faju loolu macha allah Cheikh Omar Thiam leer li am <coughs> leer am na solo trop macha allah daanaka mbirum seet dafa nekk lu ama am solo daanaka jaamu yàlla bépp mbir bu muy dugg rek war na ko càmbar war na ko saytu xool tey jii ba nekk na tey jii lu gën tey jii bu si amee ay sarax yu si mel suñ borom defal ko ko xam naa bu ñu paree ci loolu sëriñ bi bëgg nañu waxtaanee tamit mbiram noob tasxiir ñu gën ko xam ci boole dafa nekk tey jii benn maanaa bi nga xam ne tey jii borom xam-xam yu bari dañ ci dañ ci wute tey jii Cheikh Omar lan nga ñu mën a laay biir ci mbiram noob. waaw wàllu noob wax dëgg yàlla dañ ci xam xam-xam bu wér te bañ ci dalee jëflante nit ñi ba léegi gisuñ ci lenn lu ñuy rëccu wala lenn lu ñu ci naqari ci wàllu woowu. ndax képp koo xamante ni yaa ngi xam koy bëgganteeg nga bugg kaay nopp ba loo ko wax mu def ko ba nu xaj toppee borom nga bëgg mu toppale ko noonu wallahi xasimi boo ñëwee fii xaajo boobu dana faju te ci 24 heures incha allahu rabbi la ñuy saafara bu fekkee ne nii da ngaa xam soxna soo xamante da ngeen a mu dem ay weer wala ay xat nga ñëw wax ma ko incha allahu rabbi 24 heures ci kàttun yàlla da ngeen déggante te da ngeen jubóoxaat te da ngeen nekk benn te incha allahu rabbi di ngeen mas a tàqali ko ba abadan loolu ñu ngi ci sant yàlla xanaa nga dee bàyyi ko fi wala mu dee bàyyi la fi waaye mbirum nopp xataa sa patron bi ngay lëg yëg nga bëgg jubóog moom bëgg nga nekk ci jàmm incha allahu rabbi boo xasee fii ñu noobal la ko mbirom nopp ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax ndax maa ngi yore benn sungu boo xamante ni sungu boobu noonu bu fekkee ne danga jóg di dem ci nit pour sàkku dara na nga ko def nag boroom xaalis wala koo xamante ni li ngay sàkku ci moom leer na da sunguf boobu noonu su ma la ko joxee nga raaya ko si sa loxo def nii mu dugg def nii mu dugg nga dal di dem jàkkaarloog ni ko jox ko loxo wallahi xasim xaajo boo faju na loo ko laaj ci xaalis dala kay jox bu fekkoon ne kër nga ko laaj sax dana fexe jox la këyit dana la jox këyit kër waaw loolu moom ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax a baax te loolu mbirum noob la tasxiir bu foro foor la waaw sunguf boobu noonu nag wax dëgg yàlla ñu ngi ci sant yàlla ndax sunguf boobu noonu junne moo ñu ko jox te képp koo xam nañ ne compal nañ la si jox la ko nga def ko noonu ci kàttanu yàlla koo jàkkaarloo jox ko di ko wax sa xaajo xaajo boobu dana faju ci nu mu gën a gaawee nag. Mhm. macha allah Cheikh Omar Thiam leerale am na solo trop macha allah daanaka mbirum noob dafa nekk li nga xam ne lu ama am solo la képp ko xam Cheikh Omar Thiam xam ko suñu borom may na ko ci ay maanaa yu kawe kawe kawe macha allah ba tey jii mun nañ ne yemu sax kenn ci mbiram noob tamit ci maanaa yooyu tamit dañu gis ni Cheikh caam suñu borom da ko may trop ci mbiram loto daf si am secret bu kéemtaan ba daanaka tey ji xattaa jaamu yàlla yu bari tey ji mu ngi leen siy jàppale ba suñ borom tey ji li kenn xamul li nga xam ci xalal lu mu toll ci mbiram loto ñoo xam ne tey ji da ngaa jëflante ñoom suñu borom defal leen résultat tey ji ñu dellu si waat am kóllëre fedeli seen kóllëre ji la ay teranga waaw mbiram loto wax dëgg yàlla wàllu woobu mën naa wax ne man kenn kese maa ci teg te képp koo xamante ni yaa ngi dem ci sëriñ pour mu defal la loto pour nga gañe loo xamante ni yaa ngi koy sàkku di ko xëccoo soo ñëwee fii ci kàttanu yàlla ñu jàppale la ci incha allahu rabi nga gañe loolu ndax wax naa maa ngi fi yore lu mat fukki kayitu kër ak benn yoo xamante ni ci mbir moom lañ ma ko joxee maa ngi ci xam ay terrain yoo xamante ni ñu ngi ma ko jox te mbir moom lañ ma ko joxee moo tax loto yi ma ci kenn waaw képp koo xamante ni fu nekk la may nit di woowee nag di ma wax ci wàllu woom noonu waaye ci kàttanu yàlla képp koo xamante ni yitteel na la incha allahu rabbi boo ñëwee ñu jàppale la si nga xam teraanga ñëw investir man nag li may bañ defal ko koo xamante ni maanaam nitu caaxaankat la waaw koo xamante ni dama la koy lëggeyal nga gañe ko nekk di caaxaan di xubbi ay boîte wala di def yëfi caaxaan loolu moom képp koo xamante ni yaa ngi yaakaar ne soo ñëwee ci man ma lëggeyal loolu du ma la ko lëggeyal waaw boo ñëwee ci man duma la ko lëggeyal loolu moom dama koy teel a wax waaye koo xamante ni pour nga yokk sa askan yokk jaamu yàlla yi jëriñ leen def fi loo xamante ni tabax ay école tabax ay juma ubbi ay daar nit ñi di si jë di jëriñoo loolu boo ñëwee incha allah dinaa la jàppale nga gañe ko te si kàttu neel incha allah tawfiq dana am ndax ñëpp xamee nañ ma ci wax dëgg yàlla boole nañ ma ay nit ñu bëri ñoo xamante ni maa leen jàppale tey teraanga ju ñu xam man maa tax ñu xam ko gannaaw yàlla suñu borom loolu ñu ngi si sant yàlla bu baax a baax a baax te xam ne yàlla mooy jox ngenal ku ko sopp loolu moom ñu ngi ci sant yàlla. la Cheikh Omar Thiam leerale am na solo trop daanaka ci mbir moomu rek dañuy faral di dégg yooyu noonu dafay mel ni loolu tey jii xataa koo xam ne amul woon dara tey jii mu dem dugg ci mbiram loto suñu borom defal ko teranga bu baree baree bare loolu est-ce que du mbir liggéeyu mbir am am bu gaaw ndaxte dañuy faral di dégg sëriñ si di wax que ni jaamu yàlla yi tey jii buñ leen settee danañ leen liggéeyal am am bu gaaw est-ce bokk nga ci sëriñ yi nga xam ne tey jii suñu borom jagleel na leen maanaa boobu mooy liggéeyal nit tey jii mu am loo xam ne nii macha allah ci diir bu gàtt mu am ci alal gu bëri. waaw wàllu xam-xam bu gaaw lu xam-xam la ndax dafa xam ñoo xamante ni seen wërsëg dafa tardé léegi xam na ñoo xamante ni seen wërsëg mu ngi seen mujjanteelu maa dund xam na ñoo xamante ni seen wërsëg mu seen tàmbali maa dund xam ñoo xamante ni seen wërsëg mu ngi ci digg bi léegi nag ki nga xamante ni maanaam wërsëgam dafa nekk ci dernier bi wala mu nekk ci digg bi ñooy noonu bu ñu seetee incha allahu rabbi mën nañ leen liggéeyal xam-xam bu gaaw ñu xam xalal fii ak fukki fan ak juróom ndax maa ngi yore càngat boo xam ne su ma la ko sangoo nga jox la ko nga sangoo ko fii ak fukki fan ak juróom incha allahu rabbi da nga téye milliard loolu kenn mënu ci dara cangat boobu noonu ñu ma ko jox jot a jox Europe ñoom xam nañ li may wax ñu ma ko jot a jox ci biir réew mi xam nañ li may wax waaw ndax tungu ne du teew ñuy nataale wàllu woom ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax a baax xam na boo xamante ni ci nag lañ koy lëggéey nag bu xam ñetti weer ci lañ koy lëggéey suñ ko lëggéeyee jox la ko càngat boobu noonu day xànd ak sébilité nag bi ñu jox la ko nga sangoo ko juróom-ñaari fan doo toog fukki fan ak juróom mukk te téyewoo xalal nit ñi dañuy dañ lay foog ne sax yow est que defoo sacrifice te fekk du loolu xam-xam la boo xamante ni yàlla moo ñu ko jox te ñu ngi koy lëggéeyee ci alquraanu karim di ko lëggéeyee ci sunguf ak ko lëggéeyee ci reen di ko lëggéeyee ci ay loolu ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax a baax képp koo xamante ni xam-xam bu gaaw moo ko yitteel incha allahu bi boo ñu settee suñ la ko lëggee incha allah balaay mat fukki fan ak juróom nga téyeet xalal yu bari wàllu woom ñu ngi ci sant yàlla mhm. te xam-xam bu wér la nag waaw macha allah Cheikh Omar Thiam leeral yi am na solo trop xam naa tamit dañuy bëgg nañ waxtaanee benn maanaa dañuy faral di gis jaamu yàlla yu bari dañuy am jafe-jafe ci mbiram papier mbiram kayit maanaam ñu war a tukki wala ñu nekk ci ab réew def ay at amum kayit fa nekk fa li nga xam ne dafa doon di leen jafe jafe jafe te macha allah tey jii képp ku xam Cheikh Omar Thiam xam ko ni suñu borom may na ko ci ay tegtal yu kawe kawe kawe macha allah ba tey jii mu si jaflanteeg jaamu yàlla yu bëri. tey jii lan mooy secret Omar Thiam ci biram papier ba tey jii daanaka mun nañ ne yemu sax kenn. wàllu papier dafa xam loo xamante ni yàlla moo ñu ko ci may te xamuñ ci kenn nag. moo xam papier bi lu jafe-jafe jafe-jafe-jafe ci kàttu yàlla boo ñu seetsee danaa ko liggéey ci ñett façon bu fekkee ne mën nga jot cangat bi ñu liggéeyal la jox la cangat bi comme ñu si Europe bu fekkee ne mënu leen a jot cangat bi bu ko defee ñu teel dafa la riyaada ñett fan wala juróom-ñaari fan ci ñett yi ci laa koy liggéey benn ñu jox la cangat bi wala ñu defal la riyaada ñett fan wala juróom-ñaari fan incha allahu rabbi këyit gi lum jafe-jafe lum compliqué liggéey ci kàttanu yàlla balaay mat fukki fan ak juróom dañ la wane la sa kayit gaa ngi nii wàllu boobu ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax a baax loolu wax naa ci wax dootuma ci waxaat te mbirum kayit xamut kayit lum jafe-jafe nag nga ñëw ci man te xaajo bi fajuwut loolu wax dëgg yàlla tey su ma génne woon ligsi yi nga xamante ni am naa ko ci mbirum papier ëpp na deux cent mille personnes waaw te loolu ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax a baax waaw. macha allah Cheikh Omar Thiam leer li am na solo trop xam naa tey jii mënuñu seet Cheikh Omar Thiam sans pour ñu waxataanee mbiram jaaro fay bor bu kemtaan bu nga xam ne tey jii mu ngi koy laaye biir askan yi tey jii jaaro fay boor boobu noonu cheikh bi lan la làmboo tey jii ba di ba def kemtaan yi nga xam ne tey jii daanaka ci mbirum bor képp ku ko ku ko yoroon tey jii nga nekkoon boor bi nga xam ne tey jii da nga ko ameloon jaamu yàlla suñu borom dina la defal nga saafara ko wala tey jii bu doon tamit dañ la war a fay kooku tey jii du dëdd ji lal te fayu la jaaro bi lu mu làmboo sëriñ bi. waaw jaaru fay boor bi dafa nekk jaaru boo xam ne dafa kéemtaan mbirum jinne la ndax wax naa ne sama maam wax dëgg yàlla moom la yàlla jagleeloon lool wax dëgg yàlla gannaaw ba mu fi jugee ko siru boobu noonu jot naa ko ci moom njëkk muy génn àddina te jëflante naa ceeg ay kilifa yoo xamante ni wax dëgg yàlla ñu ngi yorewoon bor bànk ay mil ay milliards laa la wax ñu ngi ko yoreloon banque dem ba jël seen bien yëpp ba tay la seen bien yëpp banque jël ko ñu taxawee zéro ba ñëwee ma liggéey leen jaaru boobu noonu jox leen ko ba ma leen ko joxee ci kàttanu yàlla wax leen ñu koy defee bañ defee ko noonu ci kàttanu yàlla tàqali ko nañ seen bor boobu. tey jamono ji maa ngi lay wallahi xasimi kitaabul naa la ne jamono ji xam na ñoo xamante ni ndungu siin lañ waroon a nekk ba heure bi suñ demul ndungu siin yàlla ak man la te maa leen lëggéeyal jàppale leen defal leen jaaru boobu ñu si Europe nag wax dëgg yàlla euh, gis naa seen jafe-jafe yeeg seen coono yi jànkuwanteeg ci fayum luyaas yoreel banque xaalis yooyu ñëpp wax dëgg yàlla maa ngi leen si jàppale di leen ko lëggéeyal di leen ko yónnee seen xaajo di faju jaaru fay bor boobu noonu wax dëgg yàlla maa ngi koy lëggéeyal ñu si biir réew mi ñu si bitim réew fépp fu waay nekk xataa Mali xataa Nigeria xataa Ghana xataa Togo ñëpp ñu ngi may woo di ma sant jaaru bam noonu ma leen koy lëggeel te incha allah seen xaajo mu ngi ciy faju te nit ku nekk bu ñëwee ci yow te lu ko tax a jóg xaajoom faju dootu fa del si haat waaye da ngay gis damay toog rek sama téléphone sonné ñu ne ma diw moo boole yow ma ne ko fu mu nekk mu ne ma place sàngam ma ne ko nu mu tudd mu wax ma turam ma ko dëgg la man maa ko lëggéeyal jaaru bi mu ne ma diw moom noonu moo ma booleeg yow bëgg naa nga lëggéeyal ma jaaro bi ndax dama yore ay bor yu ma war a fay te xaw ma nu may def bu ko defee ma lëggal ko jaaro bi incha allah mu tàqali ko bor yi loolu ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax a baax te jaaru bi su ma la ko joxee juróom-ñaari fan nga koy utiliser incha allahu rabbi tàqalikoog say bor wàllu woobu ñu ngi sant yàlla ndax ñu ma ko jot a xam nañ li may wax macha allah Cheikh Omar Thiam waxtaan bi am na solo trop macha allah daanaka mu ngi bëgg a kuddu mais tey jii mënuñu ko tëj te duñu waxtaanee mbiram tële néew kattan nga xam ne mu ngi lëmbee askan wi. waaw wàllu néew kattan maanaam dafa bëri ci jamono ji xam na ñoo xamante ni rab moo leen ko def xam ñoo xamante ni liggéey moo leen ko def xam ñoo xamante ni maanaam foxe bu ñuy foxe seen xawra moo leen ko def waaye bu ci mën doon incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla. boo ñu seetsee danañ la lëggeyal saafara bi jox la ko te boolante ko ak tuuri xorom lii nga naan ko lii nga raxasee ko sa xawra incha allahu rabbi santa mën nga kay dund ci kàttan yàlla dootoo jàmbarati tëlee wàllu woom nag ñu ma ko jot a lëggeyal xam nañ li may wax wax dëgg yàlla ndax ñu ngi may boole nit ñu bëri ci wàllu woom loo loolu laa ci wax daal waaw wàllu tëlee moom képp kum xam na ni dal na la boo ñu seetee ñu saafara lool ci nu mu gën a gaawee. macha allah Cheikh Omar Thiam waxtaan bi am na solo trop macha allah mais daanaka mun nañ ne waxtu dafa nekk li nga xam ne def lu tënk xam naa du ñu def lu dul bàyyi lan nga tàggatoog suñu mbokki internet yi sëriñ bi lan ngay tàggatoo an lan ngay dénk askan wi. waaw lu may dénk askan wi mooy li ma waxoon rek ndax waxoon naa leen ne dëkk bii 2021 bi dana métti ay deret dana tuuru yàqu-yàqu yi dana bëri lakk-lakk yi dana bëri loolu waxoon naa ko fan yi paase rek gis nga lu fi am ñaata oto lañ taxal ñaata. bopp nit moo tuuru ci ay deret hmm? kon ngeen xamante ni 2021 bi mooy tane nag 2020 bi ñu génn waaye nag dana métti lool lool dana métti lool waaye damay digal président bi mooy Macky sàll te mooy njiitu réew mi na ànd ak xelam na dal na teey ndax Sénégal jàmm rek moo fi xaj te maa ñaanal wax dëgg yàlla décision bi mu jël mu reculer dellu ci gannaaw wax dëgg yàlla di ko ñaanal mu teey te xam ne senegal jàmm lañ xàttan xàttan nuñ finna wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm defal ko ñi mu nekk ak di ñaanal xalifa général yi ñëpp ak xalifa aada yi maa ngi leen di ñaanal yàlla may leen jàmm may leen wér guddal seeni fan di ñaanal xalifa tuuba xalifa Medina Baye xalifa ñaseen xalifa laayeen xalifa canaba ñëpp xalifa yëpp maa ngi leen di ñaanal fanu gudd waxaan ak wér gu yaram yàlla defal leen jàmm ñi nga xamante ni boot nañ leen ñëpp yàlla defal leen jàmm di ñaan Sénégal yàlla def fi jàmm saxal fi jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.